sayyidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu bokku jullit yi bokki taalibe murit yépp ñu ngi leen di nuyu ci turu Cheikh Mouhamadou Mountakha xafidahu llahu taala waraha wa ayyadahu wa nasara kon ci ndigalam lañuy yëkkatee kàddu yu ñuy wax te kàddu yu gàtt lay doon di tàmbalee nuyoo bi nag ci kilifa ak jataay bi di sëriñ Abibu Mbàkkam Cheikh Mouhamadul Fadil di ko sant di ko gërëm di ko ñaanal ci barkeb sëriñ Tuubaa yàlla suñu borom gën koo dolli kàttan dolli ko gër ba liggéey bii mu liggéeyal sëriñ Tuubaa te ñëpp teg seen bët àdduna sépp teg seen bët te lépp di Pastef yàlla na ko ci suñu borom gën a dimbale may ko kattan ak ndax jëwriñ ju jëwriñ la kon ñu ngi koy sant di ko ñaanal bu baax a baax di nuyu xam naa duma may lim ñëpp nag Cheikh Mouhamadou Moustapha ibnu Cheikh Mouhamadou Lamine Bara démb rek maa ngi lay tudd ci waxtaan ay taalib yu fi ñëwoon may fàttali benn jataay waaye moom itam ñu koy berlu cantam ak ngërëmam ndax ni ma ko daa faral di waxe rek waaye juróom Cheikh Mahmoud Lamine Bara liggéey bii moo ko jël teg ko ci sama loxo waaye yàlla def na diggante Sëñ Bara ak Sëñ Buxaari moom àdduna sépp xam nañ ko waaye nag yàlla def na sama digg moom ci moom mii la jóge kon loolu duñ ko fàtte te sàmmoo ko lool ci su démb rek maa ngi koy wax nit ma ne ko ma di ko nettali ci ay waxtaan rek taxawaayu moom ba ci bi Cheikh Mouhamadou Lamine Bara nekkee ci biir wér gi nekk aliya saa su xëyee ba ngoon faaw mu ñëw ci man ne ma nangam xew na nangam xew na loola nag ci nekk baayam loo ko tam doon ba ginnaaw baayam bala ci mujj suñ baara jógee def lu ma ñeenti at wala ñetti moom ngénte tudde ma ko doom ja Sëriñ Moustapha Saliou moo ko doon tudd kon moom lépp lu ko war ci man ci cër rek matal la ko sëkk kon ñu ngi koy ñaanal mu yàgg wuutu waa juróom te yàgg booy liggéey yi mu koy liggéeyal ginnaawam di nuyu di nuyu Cheikh Mouhamadou Moustapha innu Cheikh Sidi mi nga xam ne dafay tooge ñaari jataay jataayub ak Cheikh Mouhamadou Lamine Bara waaye tooge fi jataayub ak Cheikh Sidi Moukhtar moo itam ñu koy ñaanal ñaari yan yu diis yi ne ci aw loosam yàlla na ko maamam kàttandal ba mboolem li nga xam ne waaye juróom yéene woon na ko liggéey ci lislaam liggéey ko ci yoonu yu mu moom moo tax lépp moom itam ñu ngi koy sant di ko gërëm bu baax ci taxawaayam ak jàppam ndax bàyyam seeree loon ma ne Moustapha de gërëm naa ko ndax maa ko yar te sama jikko rek laa def ci moom kon ñu ngi koy sant bu baax li ci fir li ci mujj rek li ci mujj rek mooy màggalu ko Sëñ Baxaar gi te lépp fedd li rek fi ma waajuram tegoon la ci jublu kon ñu ngi koy ñaanal bu baax mu yàgg yanu yan bi moo itam ak mboolem kilifa yi fi teewu ndax daanaka li ma waroon wax di nuyu itam ñi fi suñu kilifi gi yebal di sëriñ daam abdourahman sëriñ daam atta muy suñu cheikh ak seen cheikh abdou ñi nga xam ne ñoom la yónni ci bis bi nga xam ne ñoom lañ ko dara jaale di ko yóbbanteem siyaare di ko yóbbanteem nuyoo ak cant ak ngërëm daanaka li ma waroon wax lépp la cheikh mahamadou fadil mbàkke daa wax rek moo ma dal lam daa wax naan nee naa galas ba ñu bari moom lañ ngeen tuddee sax moo ma dal ndax lu ma waxaat rek daanaka baamtuwaat lay doon ndax sama ñaari doom yi ma jëkk ku ci ne wax na kàddu yu rafet sëñ Modou Baara Abdul Xadim li mu wax ci kàddu yi seere ci ni ñu war a jàppe Serigne Touba daanaka waxoon naa sax maam Baara ne ko na ma dimbale bu kàddu yi jeexee ndax liñ seetaan moo Modou mu tax a seereel la ko. moom lim ci tegaat xamu lu ma ci war a dolliwaat kon ñu ngi koy ñaareel moom itam sëriñ Bachiru Mbakke ibnu sëriñ Xaadim Awa Ba moom itam ñu ngi koy sant di ko gërëm ci kàddu yi rafet yi mu seere ndax yow ma laa yanfa maalum wala banu illa man atallaha bi qalbin salim loolu rek mooy li am solo te suñ borom defal na ko ko kon ñu ngi koy sant ci kàddu yu seere yi mu seere ngir lu baax di ko ñaanal ci barke Serigne Touba moom itam suñu borom guddalu fanam di kàttanam dolli wërsëgam ba li mu bëgg a liggéeyal maam lépp mottali ko kon maam Baara daanaka waxi Serigne bi moom li ma li Cheikh mu tax daa wax Cheikh Mouhamadou Lamine Baara ne ko sa genn kaddu moo gën suñ junni kaddu waaye lii fi Serigne bi wax daanaka jërul luñ ci war a dolliwaat xaw ma lu weesu rek soññi bokki taalib yi. ak ñi bëgg def lu baax aaya suñ borom bi wax ne hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tuminuuna billahi wa rasulihi wa tujahiduuna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum kon jihaad ci sa alal bokk na ci li gën a mën a yóbbu nit ci yàlla bokk na ci li tax suñ borom digge ci ne boo léegi daal la tabal àjjana rawatina nag koo xam ne taalibu Serigne Touba nga ndax Serigne Touba moo waxoon ne bokk na ci njariñi addiya suñu saa lu nett na ko ba tàyyi dana fekk fu dara nekkut mu def fa dara dana fekk fu lu bari nekk mu baril ko waaye dana fekk lu lu bari nekk mu barkeel ko kon nañ xam ne képp ku ci dugal sab dërëm na la woon a jëf nga jëf ju àgg ci yàlla waaye képp ku ci dugal sa dërëm jëf nga jëf ju àgg Sëriñ Tuubaa kon ñu ngi ci soññ ñëpp lu ci waay man ndax sumb la wu diis waaye lii ñu njëkk wax léegi rek yoon wi moom la Cheikh Cheikh Abdoul Ahad Mbacké daa wax rek liggéeyal Serigne Touba li ci am solo mooy façon bi waaye na muy fexee ba mu am moom sa yoon ndiw ci kon bu ci jàq bu ci jaaxal bu ci xalaat na postéef bi dëggu a sell rek postéef bi dëggoo te sell lépp Serigne Touba ko yoru boppam dégg naa Serigne Modou Bara nett la fi léegi ci diggante Serigne Touba ak Cheikh Ibrahima Faty waaye foofu ci diggante boobu dafa am lu kiimaane lu ci am moo tax lii mu lii ñu wax léegi rek yoon wi moom buñ ko raxut rek buñ ko raxut rek liñ bëgg lépp dañ ko am ak Cheikh Ibrahima Fati Serigne Touba da ko yar tubaab yi dañoo seere ne Serigne Touba da ko yar ba def ci moom jikkoom boo sëriñ bi bind bindagut addu dihil ay man bindagut it Ibrahima mi nga xam ne lam yu faariq nii fii yi wala fi kibrihi ginnaaw bi da ko Serigne bind ak yu bare bëri yoo xam ne kenn mënu ko lim. waaye bi ko sëriñ bi di yónni ndar boo def fekk maam Cerno xam ngeen ne murid yi ni baaxoo naka jekk ci dëddu àdduna gi yére yem sol dafa xaw mel ne lu xaw a màggat mel ne lu xaw a doon yére yoo xam ne dafa xaw a ràpp sëriñ bi wax ak moom yónni ko ba sëriñ bi maam Cerno di waaj ngir dem am lenn ci nit ñi nax naka jekk nag àdduna noonu la mel xel yi du tolloo ñii dañuy am positif ñii sax danañ am positif waaye positif yi day rawante am ñu ne ko fee la sëriñ bi yoon de barab bu àdduna la te sa yére yii boo ko sali boo fa àggee doo fa dugg dangaa war a solu ba boo demee ñu xam ne ci sëriñ bi nga bàyyi ko ak Cheikh Ibrahima Fati daal di jël ab garab bu rafet sol di ñëw ci sëriñ bi di tàggoog moom sëriñ bi ne ko dafa mel dama seen nga soppi yére yee nga soloon maam Thierno ne ko leeral sëriñ bi nam demee ndax moom di gëm ak sëñ moom noonu ko sëñ Moussa ko waxee rek bu Bàmba doon Moussa mu dem mu dem Harouna yoon woo yoon woo awa awa wa yoon wa wa wa xam nu ko waxee sax wa Cheikh aw sore na sëriñ Touba ne ko nag dindu ko te sol mbubb mi nga soloon ndax yére yi nga soon tàggat gi ma tàggat tubaab bi ci laa ko def ak Cheikh Ibrahima Fall départ fa jóge fa ñëw ba ak si ndar bi mu agsee ni ko sëñ Modou Ba noonu waxee rek ne demee maam seen taxa suuf di waxante tubaab bi gouverneur général ne ci kaw séen ko bi mu gisee wax ji mel lu xaw a dëgër mu ne kéema séen ak yére yemu sol ku ko seen xam ne ay caaxaan taxu ko jóg joxe ndigal nañ ko bàyyi suuf ñu ko sëñ Modou Ba kon loolu ku doyloo sëñ Touba foofu rek la moo tax bi ko sëriñ Touba di. sàkketloo kër Touba gi Serigne Saliou nee na kër kër gi daanaka motoon na kilomètre kër Touba gi kër gi mooy fii jumaa ji nekk tey ndax daa amoon kër Touba am daarul Xudus am daarul Rahman mooy kër Serigne Souhaïbou am daarul Minam mooy kër si Serigne Bassirou fii ñu tuddee kër Touba gi nag ginnaaw Serigne bi Cheikh Mamadou bi moo ko moomoon mooy fii jumaa ji nekk tey bi ko sëriñ bi di sàkketloo ak Cheikh Ibrahima Fadil ci jamonoy guerre 14 18 la. bokk ko ko sëriñ bi di sàkket loon ne ko defal ma ko sàkketi weñ mooy seng maam Thierno moom dafa xam sëriñ bi xam na lu ko sëriñ bi mën naa ne ba mu fa jógee am ñu ci waxal leeral leen digal li ñu ne ko dangaa war a dellu ci sëriñ bi nekk mu soppil leen digal li ba Cheikh Ibrahima Fati ne leen ne ko lu tax mu ne ko guerre bi am marchandise bateau yi ñëwatul marchandise ñëwatul seng amatul ci réew mi kon xaalis amatul te boo dajalee na xaalis ba am ko sax ba am ko sax foo gisee ay seng doo ko gis Cheikh Ibrahima Faty ne leen néew ma xaw ma Sëñ Tuubaa de néew ma xaw ma seng waaye yéen xamuleen Sëñ Tuubaa ndax Sëñ Tuubaa du santaane mukk lu dul am te du ma sant mukki lu ma du def Sëñ Saaliw nee na ba mu defaree kër ga ba mu àgg ba këy ba bañ seng ko ba lépp àgg nee na leen lu ci ne ay tono ca des muy seng yi ak pont yi ak lépp kon nañ xam ne liggéey Sëñ Tuubaa moom dangay tàmbali rek waaye bu ci am xalaat na la wóor ne bu pëstéef bi sellee te gëm naa ne sa pëstéef sell na ndax naa lu bu baax kon na ci sam xel dal te nga rafet njortu te xam ne lii rek mooy yoon wi lii rek mooy jëf yi li misli haasa falyaamalil aamiluun wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu iqra bismi rabbika alladi xalaq xalaqa al insaana min alaq